lu ma ci bind tey séddale ko tasaare ko ci réseau yi xamal leen ne état du nit waaye nit a koy doxal waaye nit ki bu koy doxal day doxal état ci ni état di doxe état dafa am temps boppam am doxalinu boppam am ay mbiri boppam yoo xam ne yow jëmm ji boo ci tàbbee loo say mébét lu bari bari bari bari boo ñëwee mënoo ñëw rek di falaxee di dajee ko di def lu neex déedéet dafa am temps dafa am yoon woo xam ne état noonu lay doxee boo ñëwee da ngay tegu ca yoon wa soog a mën a am li nga bëgg waaye ñu ne ci biti yàkkamti fayantoo yàkkamti dégg nga maam faj seen mer ndax li ñu leen def dafa metti te yàgg te ki leen ko def mooy ñi fi nekkoon loolu lépp lu ñu xam la lu ñu nangu la lu ñu lu ñu comprendre la ci yéen loo xam ne wareef la lu noonu parce que nooteel gi moo yàgg te tiis moo tax ñu nangu ko waaye nag lu mu tiis tiis tiis lu mu metti metti metti metti lu ñu yàkkamti yàkkamti fay fayante ndax dañ ñoo tooñ ñu war a fayu waaw loolu ngeen bëgg dañ ne tooñ ngeen bëgg justice ñu fay ñu ngeen fayu jaadu na loolu diina nag diina terewu ko yàllaa ko digle waaye nag booy fayu nag dangay am charte dafa am yàlla nee na bu ñu la da ngay fayu kéem lañ la tooñ mënuñu laa dompat nga dóor bulon waaw mënuñu laa dégg nga maam dompat nga damm léeg loolu du fayu kon lu ki nekk dafa am noo koy defee defin woowee nag boo bañee mu ëpp danga koy teg ci yoon ci charte moo tax ñu bari léegi-léegi boo bindee poste du ñu xam li ngay bind booy gérer ay détails ci li ñuy war waxee ni ñu war bindee ni ñu war a toggee ci palais bi am làppato yu dugg naan la wéy war a wax li yow ñu toppatoowuñu ay français yu baax français yi bu ngeen ko wax wax français parce que langue officielle réew mi mooy français ku dugg ci palais bi da ngay làkk français ñi ngay waxal ci àdduna bi français parce que ñun ay wolof lañ kon kenn nañuy wax wolof te bañ a waxati français ba xam fu ba xam fu ñu jëm nit da nekk nit xam looy wax xam looy def waaye lu nit wax nga am ci loo ci wax te li muy wax xamoo dara amoo xam-xam man mos xam nga du ngeen ma jaay ay làkki wolof du ngeen ko jaay ndax gën leen maa nekk wolof gën leen maa bëgg wolof waaye dafa am nu muy doxe ba ke rek loolu di fi jóge te jóge gu fi mooy làkki réew mi français la kon bu ñu koy wax di ko bind dañ ko war a bind ci anam bi ñu ko war a bindee bu doon chinois nañ ko def làkk yi ci àdduna bi olof sax boo koy làkk làkk ko ci làkkin wu leer waaye bu ko yàq waaye comme seen xam-xam àggul foofu lu waaye bind ngeen tontu ko te amu leen xam moo tax da ngeen di yàqal Bassirou Diomaye fay di yàqal président Ousmane Sonko état kenn du ko futti def ko taatu neen ci mbedd mi état dañ koy warmal dafa am respectabilité dafa am warma bu mu laaj am ay norme am loo xam ne mooy kañ li moo ko téye état kenn du ko toroxal kenn du bind la neex nu mu la neexee wax tubaab yu la neex wala wolof lu mën doon solo lu la neex nga paaral toog ci pale bi ubbi say tànk déedéet dafa am nooy toogee am nooy waxe am nooy solo am nooy doxe am lépp teg ko ci yoon ndax fi nga bërëb bi ñu la dugal bërëb boobu moomoo ko askan wee ko moom dafa am noo fa war a toogee ku fa dugg dafa am noo a toogee loolu man dama koy sàmm man lu am solo bu fekkee yenn ñenn ñi nga xam ne ci àll bi ñoo xam ne ñoom nañoo naan ci politique mën nañoo lekk ñoom seen néew ci xamuñu li ñuy wax parce que boo waxee ñu tontu la loolu musiba la heureusement ba président Diomaye moom xam na li muy def xam na fi mu dugg palais bi mu nekk c'est un solo neen du du du lu la neex nga fay def toog nga paar ubbi say tànk toog di waxtaan di film maa ngi koy conseiller moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye téléphone yi dugg ci pale bi yëpp nañ ko nangu confisqué ko parce que dugg ci palais bi di filmer lu ne génn nga filmer gis naa fa ay image yu fay génn yoo xam ne jaaduwul ñu di fa génn nañu arrêté film yi lu xew ci pale bi ñu di ko filmer di ko tasaare ci réseau yi nañu moytu loolu nañu moytu loolu nañu moytu loolu maa ngi leen artu ñoom ñu nekk ci biir pale bi téléphone yeeg film yi nañ ko interdire di liggéey professionnellement waaye nekk ci palais bi di filmer président bi romb président Ousmane Sonko romb ngi mba rek ngay filmer sànni ci réseaux sociaux yi. loolu bis bu amee république bi ci suuf la jëm lu leer laa leen wax la république est solennelle dañ ko moytu waaw topp xale yeeg làppato yi nga xam ne yëguñu lu xew topp tiktok bi réseaux sociaux yi mbell mbell poste yëguñu lu xew ñoom xam état su ko futti taatu neen teg ci mbedd mi. ay républicain lañ avant ñu nekk ay patriotes ay républicain lañ. L'État est sacré, l'État est sérieux. amul xër amul patti patti képp ku xër dof nga affaire bi du xër affaire yu nit la projet bi du affaire yu dof du affaire yu pëyi pëyi du affaire yu sama yoon nekku ci lu ñu wax nga wax ci projet bi xam-xam la ak nit lay tabax nit du yëfi dof képp ku dof bokkuloo ci affaire yu nit la ñun yoruñu affaire dofe ki dama xër ku bëgg loo nga dem uti ko feneen Sénégal la ñu tabax xel moo koy tabax ak ku nite na leer ñu leen may dara ñoo àndoon di xeex ba dugal Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ci palais bi duñ leen bàyyi ngeen di pëyi pëyi de di photo woo ko vidéo ki bind français yu bon poste yi ci page yu président bi dara baaxu ci ma di ci topp di ci sonn di ko corriger am ñu dafa naan taluñu ay français ñun duñu ay français ah du ngeen ay français d'accord man maay français bi man après bu ñu nekkul ay français nag constitution bi làkk wi ki nekk mooy français ku ko déggul doo nekk président Diomaye mi toog bu ko déggul woon du falu looloo fa nekk comme moo fa nekk nag nañ ko sàmm ba keroog ñu di ko fi jële may wax di jubbanti di defar am ay la ay ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee ñun ay français kër kër lu mu doon xawma ku koy bind ñuy sabote ma di ko wax ñu am ne ñun duñu ay français bu ngeen bu ngeen nekkul ay français lan ngeen lan ngeen waaye nag kenn ku ci nekk li mu nàmpalee gàll amu leen finesse vous n'êtes pas des gens civilisés civilisé wu leen bëggu leen lu baax xamu leen lu jekk ak lu rafet. moo tax mënu leen koo yéene président Diomaye Faye ak président Ousmane ko man nag ci loolu lay liggéey fexe ba seen image de marque baax seen ni ñuy soloo baax ni ñuy waxoo baax bu ñuy làkk anglais mu baax bu ñuy làkk français mu baax bu ñuy làkk arabe mu baax bu ñuy làkk wolof mu baax man awma problème mu làkk làkk wu ñu mën a làkk ñoom di ko wax ci turu Sénégal na jub te baax bu ñu ko bindee na jub te baax loolu dama leen koy sàmmal ay français loolu mooy loolu mooy ban fas wax loolu mooy lan kon dal nañu rajaxe rek palais bi moom Bassirou Diomaye Ousmane nañu làkk lu leen neex nañu bind lu leen neex bu baaxee bu bon seen nekku ci Sénégal dafa am àq yéen loolu du si seen néew ci réew mi dafa am àq boo xam ne dañ ko war a jox ndax dafa am ay nawle ay réewam yu ko teg bët di xool loolu Ousmane Sonko daf ko war a sàmm Diomaye Faye daf ko war man mi dama ko war a sàmm yow nga war koo sama yoon nekku ci jaxase mélangé arrêtez ça arrêtez ça man ak yéen la de man ak yéen la xeex bu metti laay xeex ak yéen parce que réew mi kenn du ko futti def ko taatu neen ci lu la neex nga def mbedd mi réseaux sociaux yi du pale bi pale bi du réseaux sociaux ko TikTok ak seen yëf dof yooyu amul ci palais bi il faut que ça cesse dinaa xeex ak yéen ba lépp tegu ci yoon état république la moomuñu ko ëllëg dañ koy joxe waaw xeex yéen rek nekk nit par force waaw loolu dama ko ci doon wax sànq dama ko def poste am dof yu ñëw di wax yu kenn xamul ci mur ba ku ay ku ci wax waay dof rek ma bloqué la génn man sama mur bëgguma fa dof li may wax xel mu kawe ko amul xel mu kawe mi mën na la ceppet sànni ci àll ba soxlawuma ay dof photo waaye yéen ñi ànd ak jomaal tamit duñu fayal jomaay ak Ousmane Sonko bàyyi leen ngeen dugg ci palais bi wala xawma ku koy def nag xëy na ña fa nekkoon waa APR ñoo koy saboté xawma waa Pastef la xawma ku nekk ci cellule de communication bi actuellement parce que dara leeragul mais li ma gis muy génn comme mbind ci page yu président de la République dafa ruslu ci Sénégal gàcce la ci Sénégal palam gi nga xam ne àdduna bi yépp koy coow muy palin goo xam ne amul fenn ñu nekk tey jii ñi gën a am euh, dégg nga maam wegg guñ ñu wegg ci wàllu démocratie ñu fal ñu ba noppi page yu président de la la fay génn war a nekk lu professionnel lu leer loo xam ne ku ko liir ci àdduna bi ne ah ñii de ñoo ngi soog a xam lu tax ndam lii ñu am ñu am ko ndaw président bi gën a ndaw ci Afrique te ñu tabb ko ci ay carte mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci condition yi ñu ko fale ci joow laak li ci am ñi ci dee ñëpp réew mi si àdduna bi yëpp tiit ci Sénégal ñu ñëw génn fii tey ndam loo xam ne ñëpp ngi ñu koy gañe ñu dem ca page présidence ba fekk fa français yu ñu bind njaaba njalla njal njalla xaanu français yoo xam ne mën a kii ki ko def dañ ko war a enquête ba xam ka la tegg ko fa mu nekk li mu def c'est scandale day sabatu suñu ay victoire sabatu suñu état je suis je suis attaché à la rigueur je suis man man dama metti loolu ngeen tuddee metti ki dafa metti ki dafa bëgg ay détails yéen xamu leen ne moo wax bala maa dee ñaan dafa daa bëgg détail da ngaa bëgg détail xamu leen lu nekk ci détail wallahi xamu leen lu nekk ci détail mais nag c'est normal fi ngeen seeni jaar-jaar la amu leen finesse vous n'avez pas l'art vous n'avez pas la culture vous n'avez pas le goût vous n'avez pas la finesse xamu leen lu rafet vous n'avez ne savez pas ce qui ce qui est beau la beauté Parce que vous avez peut-être beaucoup souffert. ce que c'est que la beauté. Vous ne pouvez pas apprécier la beauté. Quand on sait apprécier la beauté, c'est parce qu'on sait apprécier le détail. C'est le détail qui fait la beauté. Mais vous n'avez pas cette intelligence. Et c'est dommage. ñi ci ëpp dañu tëñëx yi rek ay ñoo xam ne xamuñu lu xew am nañu téléphone am tuuti crédit nekk ci réseau yi di mbelli mbelli man li may wax dafa kawe li may wax du yëfi gone li may wax njëriñu président Bassirou Diomaye Faye la ak président Ousmane Sonko moi je suis extrêmement exigeant je suis intransigeant sur la je suis un perfectionniste je ne suis pas parfait mais je tends vers la perfection je suis tellement omnibulé par la perfection j'aime que les choses se fassent dans les règles de l'art voire même au-delà des règles de l'art je suis dans le détail parce que le diable il est accroché au détail pour que suñu gouvernance bi nekk une gouvernance mais irréprochable irréprochable loolu nag xooluma li may wax waxuma ko pour mu neex kii mu topp toppatoo ma ku mu neex ko mu naqari parce que réew boo ko bëggee defal doo fi nekk du xool lu neex kee lu loo war a wax ko loo war a def def ko fit mais boo toog non buzz su ma waxee lu neex patriote yaa duñ ma may buzz duñ ma seetaan sama yoon nekku ci nekkuma fi di wax pour ñu may may buzz toppatoo ma lool. on gère ce dañ ko war a suqaliku dégg ngeen li président Bassirou Diomaye Faye wax tey dégg ngeen discours bi est-ce que dégg ngeen li mu wax tey est-ce que dégg ngeen li mu wax tey ba Sénégal di Sénégal ba léegi man mosuma fee dégg discours bu gën a réyee discours am bii c'est le meilleur discours du Sénégal depuis 1960 64 ans après xale bu ndaw bu ñëw bu am 44 ans nekk président moo ñëw tey wax fi lu fi kenn mosut wax kenn. musta wax li mu wax tey waaw ku mel nii dañ koy am bàyyi ku mu wax waxam ju rëy ji waxam ju am maanaa ji wax ju fi kenn musta wax gañ nañ fi ku ne Senghor rek Diouf rek ku ne lu ne lii mu def tey ji ci bërët benn yoon la génn ba mu faloo ci palais bi mi ngi soog a wax yépp jugugul de dana jar jant bi làqu nëbb na ko àttanuma la bu dee jaxeet jaxeet ñaari pas teg ñaari pas va et vient aras yëngu macha allah loolu nag xam-xam la ak rigueur ak dal ak ànd ak ñi nga war a àndal ñu gérer les détails république la république c'est l'élégance la république c'est l'esthétique la république c'est la posture la république c'est la rigueur la république c'est l'honneur la république c'est le sacerdoce mais loolu ñi ko xam bari wuñu gars yi ñoom ñi ngi wëndeelu kenn ku nekk yaa ngi bëgg a falu am ay postu taxaw gërëm gërëm costume cravate dugg génn affaire Ablaye Mbaye peex yooyu ñu ci bari ñoom ak Ablaye Mbaye peex a yem am postu takk ay pins yor ay macaron dugg génn jugi pale bi ñu ci bari ñoom ab Ablaye Mbaye peex a yem seen cerveau yi ak servo ab Ablaye Mbaye peex ñoo yem xamuñu ne ñoom la république dañ ko war a servir avec loyauté élégance esthétique beauté générosité désintéressement mais bu fekkee yow costume nga bëgg a cravate ki caabi oto 4-4 booy dawal génn jàpp ci xale yi dina paaje loolu nga bëgg yow état bi li bi ngay xeex yëpp loolu la yow am taax mu rëy yow yow yow yow foofu nga toll te boo bëgg a tabax réew da ngay weesu loolu képp ku nekk foofu ngir bëgg am ay post yow mënagoo tabax Sénégal Sénégal ñi koy tabax dañuy am dañuy dépassé ay problème oto ki 4-4 ak jéeg booy na paaje da nga koy weesu li Bassirou Diomaye Faye woote ñu bari dégguñu ko ñu bari ngi kontaan mais da ngeen war a tiit ndax li muy woote daf cee soxla ay loxo yu baree baree bare bu taxaw daf ci soxla ay loxo yu bari bu taxaw mais yàlla na ko yàlla dimbali mu am ay loxo yu taxaw loxo yi mu soxla loxo yi mu soxla man mi dégg li mu wax loxo yi mu soxla dama li may xalaat yàlla bu mu am yàlla bu mu xëy di ut ay loxo yu baree bari yu mel na ay loxo ma yu Sonko waaye du ci mën a am lu ëpp fukk ci baaraami loxoom yi parce que réew mi bëgg nañu sac bëgg nañu am pal bëgg nañu costume cravate bëgg nañu huit huit bëgg nañu am taax bëgg nañu ay jeeg bëgg nañu umra ji bëgg nañu màggal bëgg nañu gàmm bëgg nañu ku leen tagg bëgg nañu waaw góor waaw góor waaw góor waaw góor rek waaye yan bi diis na yan bi rëy na yan bi diis na yan bi rëy na waaye yàlla na ko yàlla dajaleeg mu tombeek ñu mel na ñoom parce que ñoom ñaan ñi moom ak Ousmane Sonko yàgg nañ ko te ñoom ñëwuñu pour alal de faluwuñu ci bopp réew mi alal tax leen a jóg réew mi nag dafay néew koo fi waxal te waxu nit ñi xaalis a nekk seen yi ñii xamuñu ko ñii yàlla moo leen dimbale ci gëm yàlla ñu dem ba démystifier xaalis ñaar yëpp ñaar yëpp bariwuñu ñi juddu ci xaalis ba xam xaalis xaalis toppatawuñu xaalis ñooñu bariwuñu ñi nga xam ne tamit dañoo judduwul ci xaalis waaye yàlla dimbali leen ci seen ragal yàlla ñu dem ba démystifier xaalis xam na xaalis boo ci amee lu duñ doy na mais soxla woo ci leneen mu mel ne moom mii Bassirou Diomaye Faye loolu la loolu ku ku mel noonu la ma nuru président Ousmane Sonko ñu mel nag boo leen doon wàññi ci réew mi boo wàññee sa fukki baraam yi du mat boo leen toggaloon kilo ceeb mënuñu ko lekk ba mu jeex loolu mooy sama njàqare loolu ma tiital moo ma tiital man nit ñi ay 4-4 la ñu bëgg ki ay 8-8 ñu fal la ku nekk woo la félicitation waa ah, kër ñuy dugal ay CV ñuy woote kër kër waa mais waa loo may jox kër kër mais marché bi lu may am mais jàpp fii mais xam nga kër kër ci yooyu képp la Sénégalais yi dox ci yooyu képp ku ne bëgg a falu ndax lan tiitaru parce que benn ascenseur bi mooy falu boo faluwul day mel ne existé woo boo faluwul day mel ne doo dara ak loo mën a nekk foo mën a nekk liggéey boo mën a am loo mën a def pour yow wala DG wala falu nekk ci gouvernement bi pour yow loolu mooy loolu mooy tekki tekki tekki tekki parce que loolu mooy liy valoriser Sénégalais yi culture boobu nag dañ ko fee bëgg a jëlee il faut que ñu xeex pour loolu jóge fi culture bi fi bëgg a teg mooy beneen culture bu bokkul nag falu ak nekk ci gouvernement pour ya na yow mat nga li nga doon déedéet. góor dëgg dëgg dëgg ab citoyen dëgg dëgg dëgg dëgg la mu war a tiitaroo nekkul nekk ci gouvernement ñu fal ko li mu war a tiitaroo mooy entrepreneuriat taxaw dégg nga de wala jàng ba pare ñëw ay société jël la dans le privé ngay liggéey wala nga créer sa société di créer richesse di créer ay emploi di fay ay impôt état bi di ci am nga di ci am loolu ñooñu ñoo war a bàkku mais pas ñëw taxaw jox benn CV wuy lii laa ñu ne ma lay fay ngay bàkku yow dañ lay fay weer bu dee looy bàkku looy bàkku ki bàkku mooy ki nga xam ne moom mooy fay boppam di fay sa morom ci liggéey ay risque yu muy jël kookoo ba jar a bàkku looloo jar a bàkku waaye fal ma fal ma fal ma fal ma fal ma fal ma da ngay fexe bay falaat wala nga dem dans le privé Sénégal googu lañ fi bëgg a tabax Sénégal goo xam ne day dox koom-koom bi dox ba nit ñi ñu bëgg a duggati ci ay politique ay nommé ma ay fal ma nit ñi dootuñu ko boo demee dans les pays développés nit ñi toppatoo wuñu ay falu xamuñu sax kuy falu seen koom-koomu réew dox na dox boo xam ne gouvernement ba xamuñu ku fa ne pays sous-développé yi ñooy nekk ku nekk fal gouvernement mu nekk coow ci réew mi yeneen yeneen réew yu développé yi gouvernement dañ koy fal nit ñi ministres yi daañu liggéey ba wàcc kenn du xam seen i tur toppatoo wuñu leen parce que dañu def seen liggéey te duñu def propagande ñu di dem ci koñ ba wala dem ci dëkk ba indi oto bi 4 x bi dëkk ba yëpp ñëw ñuy génn maletu xaalis di maye mbay peex di yuuxu fee kër kër amul ci dëkk tubaab yi développé amu fa da ngay nekk ministre ba wàcc kenn du la xam Sénégal googu lañ si bëgg indi mais ña ngay reyante ñu ngi buuxante ku nekk bëgg a falu ku ne bëgg a falu kaa ñu tabax Sénégal yan bu diis la li ñu war a jubbanti bari na loolu bu ci buuxante amee pour bëgg caa bokk bëgg bokk dong taxul bëgg bokk taxul de mooy li ñuy politiciens yi def rek falma falma falma falma loo ci joxe xaalis ak saaku ceeb ak ak ak ak ak walaatu diw falma képp boo ci mën a joxe sa alal am na lu nekk ci ginnaaw waaye tamit falma ma dugg ci état boo ci naree sonn nag buuxanteeg xeex liggéey taxul laa jóg. leneen la la tax a jóg boo bëggee liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg ci état doo ci xuloo doo ci xeex doo ko ut da ngay toog xaar buñ la woowee baax na buñ la woowee nga kon na liggéey ndax état moom ci biir ci biti fu mën a nekk mën na cee liggéey lii may def nii liggéey état la li may def nii maa ngi leen di jàppale ñoom lu fu waaye mën a nekk mën nga leen jàppale waaye toog naan ma ci bokkul mënu ma cee jàpp buñ ma liwul ba loolu liggéeyoo dangaa bëgg ay njariñ ay privilège ay avantage ngay ut te loolu tànk ni ngi ci bopp nit ñi mënuñoo liggéey tànk mi ngi ci bopp nañu duñu liggéey kon nañu delloo si suñu bopp sacrifice yi président Ousmane Sonko def ba Bassirou Diomaye fay def lu ni mel ñu bare bare ci ndaw ñu def ko ñii dee ñii dugg ci kaso yi ñii génn ñii làgg ñii sacrifice yooyu ñun ñii ñun dañ koo jommal suñu bopp dañ koo jommal suñu bopp ñun damay laaj le don de soi la ñuy wax kenn waxatu ko la don de soi kenn déggatuma kenn ko wax le don de soi léegi ni ngay xëccoo don de soi mënut nekk ci yow ngay xëccoo pour nekk ministre xëccoo pour nekk lii pour nekk le da ngay toog bañ ne la xee kaay lii jàpp nañ ne mën nga koo yore dañ la koy jox nga sant futteeku takk sa ndigg jóg taxaw ne sas nañ ma fexe ba am ci résultat loolu mooy don de soi waaye don de soi boo xam ne yaa ngi taxaw di xëccoo buñ la joxul nga mer dañoo jox par force loolu don de soi loolu njariñ la njariñ looy fekke la njariñ looy fekke te mooy li yées ci kuy xeex ngir soqale am réewam njariñ looy fekke dama doon xeex démb damaa war am tey wutu demee noonu président Ousmane Sonko wax na ko bi ñuy xeex ñun kenn forcé wul kenn mu xeex li ma dugal ci combat man bëgg Sénégal la président Ousmane li koy dugal bëgg Sénégal la Bassirou yow mii bëgg Sénégal kenn nga ñëw xeex kon ku ci xeex tey ba ndam am bul jàpp ne da ngaa xeex rek moo da ngaa a ndax ba ngay ñëw kenn woowu kenn forcé wu la bëgg Sénégal moo dugal bëgg Sénégal ngi ci yow la da ngaa war a bëgg Sénégal ñu xeex ñu ñàkk laa fal da a bëgg Sénégal di xeex parce que xeex man de man man nit wax ak yéen man j'ai les moyens de mon combat wallahi lazim man nekk ci gouvernement ak nekk fii ma nekk di laaj sama kër laa yemale faloog ñàkk fal laa yemale man damay xeex de pour Sénégal baax man fu ma nekk j'ai les moyens de combat fu ma nekk daañu ma dégg man dinaa contribuer ci réew mi moo xam ma ànd ak ñoom nekk ci biir di ko def moo xam ma nekk ci biti mais Sénégal man du ma kenn comme ni ko Ousmane Sonko ko waxee du ñu fal Diomaye ba nag bàyyi ko mu dem moom kot nag déedéet ñun ñun ñun xam nañ ne mën nañoo contribuer ci développement Sénégal ñun ñu nekk ci gouvernement ak nekk ci biti ñu moo ci yem amul différence ñun ndax ñun. lii ñu def nii bu ñu nekkoon ci gouvernement bi loolu la nga def de duñ def leneen de su yéene bi ñu am di wax ni duñu wax mais dañ koy jëmmal tey lii may wax nii yëg ak yéen di ko wax parce que ci wax man uma ay moyen pour jëmmal ko wax dong laa am mais su ma nekkoon ci gouvernement wala ma bokk ci ñoom damay teg wax jafe di ko dox nag di ko jëmmal di ko def la mise en œuvre kon kii wax pour réew mi baax ak kii jëf pour réew mi baax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi liggéeyal réew mi mais loolu nag loolu nag tolluwaay la tolluwaay la wallahi azim tolluwaay la nga yemale ku la xas ak ku la tagg nga yemale ñu fal la ak ñàkk laa fal loolu tolluwaay la yéene bi du yéene bi du soppiku maanaam bëgg-bëgg bi parce que defaloo ko Sonko man li may xeex xeexalu ma ko Ousmane Sonko Diomaye de man Sénégal laay xeexal yàgg naa leen ko wax man réew mi laa bëgg mu baax pour suba loolu Ousmane ak sans Ousmane Diomaye ak sans Ousmane dama koy xeex man ma ànd ak ñoom xeex ko ma nekk ci biti xeex ko loolu du dañ ci man loolu sama ADN la nekk. du dañ donc man ay gouvernement ki ministre ki yii nit ñi tiit man yooyu yooyu yooyu dama ko dépassé <laughs> dama ko dépassé wallahi azim du ma ci xëccoo du ma ci xuloo suñ ma woowee nag na ma ju denk la lii ndax jàpp nañ ne mën nga koo def ma def ko ci defin wi gën su ma su ma ko mënul ne leen mënuma ko xam nga Sénégal amuñu culture ñu dénk la ne la kaa defe nga ne mënoo ko man luñ nit ki war naa jomm ñu di ko dénk loo xam ne askan wi ko moom ñu di ko ci xaar mu di ko gàddu te mënu ki dara loolu musiba la lu yee lu tardé réew mi loolu ko tardé képp ku ñu jox responsabilité war ngaa xam ndax man nga ko wala mënu ko nga am honnêteté intellectuelle xam ne lii ñu lay jox doo ci am ndam nga teel koo tegg ñu jox ko ku ko man loolu day tax ñu gën a avancé waaye réew mi non mais Sénégal il faut que ñu soppi ko il faut que ñu nekk des gens altruistes il faut réew mi mënoo koo tabax ci bëgg sa bopp mënoo ko tabax ci servir sa bopp mënoo ko tabax ci yow lépp looy def rek sa bopp nga jeex xalaat sa jouissance say intérêt personnel te ñu nekk dans l' espace public dans l' intérêt général foofu yow sa bopp da nga ko war a absoudre ci biir yow warut yow nekkatoo lu dul koy servir mais boobu état d' esprit fan nga koy gisee ci réew mi fan nga koy gisee ci réew mi fan position bi ma nekk man moo gën a confortable ci man sama sama station bi ma nekk parce que damaa libre moom sama bopp man je suis tellement libre sama fi ma taxaw di xeex moo gën a confortable ci man parce que tey su ma duggoon dans un gouvernement wala ma dugg dans une majorité moo xam ban position lañ ma ciy jox su ma ci duggoon tey jii damay am droit de réserve c'est normal une solidarité par rapport à la majorité su ma xasan tey jii ba nommé ma dootu leen ma déggati ci yépp dinaay génn mais d'une autre manière parce que damay am droit de réserve damay observer la solidarité gouvernementale yu ci bare bare bare dootu ma ko mënati que damay tënku da ngay tënku c'est normal boo bokkee ak mbooloo da ngay da nga da ngay da ngay ca charte ya loolu mooy li jaadu kon nañu gën a dimbali suñu bopp kenn ku ci nekk ci yow nga toog nga xalaat nga xool sa bopp nga travailler sa bopp nga def ay effort jël say jëmtukaay yow ci sa jëm bopp am na loo xam ne soxlawoo ci kenn soxlawoo Ousmane Sonko soxlawoo Diomaye soxlawoo déglu ak yow ki sa jëmmi bopp. toogal nga jël sa xalaat nga teg sa bopp nga xool nga ne man lan laa war a mën a defal Sénégal lan moo tax man pour liggéeyal Sénégal ma war cee gis sama bopp lu tax man sama njariñu bopp rek laay xool lu tax man may ut buuxante pour nekk lii nekk laa ci gouvernement bi pour am lii am la am la am la yow li ngay xalaat pour am ko yow lan nga xalaat pour defal Sénégal suñu xalaat ci li ñu war a defal Sénégal moo war féete kaw fuuf xalaat yu jëm ci suñu jëmmi bopp yi lu tax ñun tout le ñuy xalaat suñu bopp duñu xalaat Sénégal loolu mooy li kenn ku nekk war a defal sa bopp fexe ba dëpp ko au ngay xalaat sa bopp nga fàtte sa bopp ngir Sénégal loolu moom la président Ousmane Sonko def ñoom Diomaye ñoom ñëpp loolu lañ def sacrifié wu question de mentalité la question de mindset la question de man ci seen bopp yi laa nekk di ko door màttu tell tell tell tell tell man maa ngi seen biir bopp yi man li may wax pour tabax xel yi la pour taal xel yi pour tabax bopp yi man foofu la ne ak yéen c'est important moo tax léeg-léeg ma bind wala ma posté wala ma envoyé ay ay ay sama ay observation yu may envoyé ni may waxee yéen ci suuf ni ci kaw ni gaa yi nekk ci gouvernement bi am na si ñoo xam ne damay dama leen remonté léeg-léeg ma gis loo xam ne jàpp naa ne du ni sama xalaat la am ma juuma néew ma j'ai la néew ma li may wax yëpp dëgg la néew ma ni ma ko gisee noonu la néew ma j'ai le monopole de la vérité mais sama xalaat la dama koy yéege am na fu ma koy jaarale mu dem ci kaw ñi ngi koy ñi ngi ciy bàyyi xel ou pas en tout cas sama wareef maa ngi koy def man lu ma war a def naa ko def lépp lu ma gis ne jaaduwul ci sama jëmmi bopp néewu ma nag jaaduwul parce que yéen ñëpp da ngeen war a jàpp ne jaaduwul mais man damaa am xalaat am gisin loolu man la engagé man képp la yéen man ngeen ci bañ a d'accord ma d'accord ci ne d'accord yoon ci mais man sama gisin la bu la ak nee la dama koy yéege ci kaw lii mën naa ko wax fii lii am na yoo xam ne dama ko wax fii dama koy joxale mu dem ci fi a dem pour que ñoom ñu mën ci bàyyi xel ñi ngi ciy bàyyi xel bàyyi wuñ ci xel xaw ma mais man sama warugar mooy ma di leen xamal ni ma gisee mbiri tant que ñi ngi ci ay intérêt perso loolu moo na ma bañ a fekk may xalaat na sama yoon nekku ci ñoom na ñoom ñooy gérer sama mais ñoom ñiy gérer ñoom li ñuy gérer ñoom maa leen gën a bëgg baax man ñoom ñu jox ndomba tànk yi man ñu yorul ndomba tànk maa leen gën a bëgg ñoom ñu am succès parce que succès bi ñu am nekkul seen succès bopp ñoom succès Sénégal la ñoom bu yàqoo Sénégal yàqu moo tax duma leen bàyyi dama leen war a topp lépp lu ma xalaat ne lii moo gën ma wax leen ko lu ñu def mag d'accorduma ci man leen lii d'accorduma ci te loolu moom la président Ousmane Sonko bëgg Ousmane Sonko façon nit yooyu la bëgg moom en tout cas loolu laa ko dégg muy woot une citoyenneté xam nga effective une citoyenneté consciente une citoyenneté xam nga euh, boo xam ne dafay exigeante Ousmane Sonko loolu la mas a woote li mu bëgg ay nit ñu yeewu taxaw am fulla ak seen bopp xam li bëgg kenn du leen tardeel dañ lay yónni dénk la ba noppi topp sa ginnaaw di la surveiller Ousmane Sonko loolu la waxoon de soppiwul loolu la waxoon te yaakaar naa loolu ba léegi moo fi ne exigeant kon nañu góor góorlu nañu taxaw nañu am surtout générosité générosité mooy yéwén nañu yéwén nañu yéwén nañu yéwén nit ñi ubbi leen seen xol yi ngeen fàtte seen bopp yi ngeen yéwén nañu yéwénalante ku nekk yéene sa lii mooy tax ñu mën a dem ubbi xol yi raxas ko yéenante yéene Sénégal fexe ba wayu Sénégal rafet parce que tey jii ñoom ñu nekk ci pouvoir bi ñoom ñooy Sénégal xam nga Sénégal jëmm joo xam ne mënoo koo gis teg ko loxo lu dul ñi koy jëmmal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ca bopp ba muy tey président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko premier ministre ak ñi ñuy collaborer di liggéey ñoom ñooy Sénégal ñooñu nag seen waxin ku ko dégg da ngaa war ne est-ce que seen doxin ku ko gis-gis ci dayoo Sénégal seen colin ku ko gis-gis ci dayoo Sénégal Sénégal da cee war a feeñ moo tax loolu du lu ndaw loolu dañ ko war a sàmm léegi nag nit ku simple nga simple xam nga nekk nit ku wàccee sa bopp ku simple waaye simplicité boobu dangay bàyyi ba dem ci sa kër nga sol sa kilot dox nu la neex wax nu la neex lekk nu la neex doxle nu la neex waaye boo nekkee ci pale bi danga nekk di liggéey askan wi ngay liggéeyal mënoo dox nu la neexee mënoo wax lu la neex mënoo ŋàppiku mënoo film mënoo vidéo mënoo déedéet pale bi du sàndaga boo fi duggee la la preuve ay militaire lañ ko dénk dafa am nooy taxawee am nooy doxee am nooy waxee lépp da nga koy xool tout est millimétré parce que image Sénégal du image président yooyu Sénégal ci boppam jëmmam ak dayoom mooy palais bi lool lay incarné gouvernement bi loolu lay incarné képp ku nekk ci état di liggéey xamal na yow yaa ngeeg benn ci jëmm sénégalais yi nga xam ne da ko war a ñoŋal ca taxaw ba ca wax ja ca doxin ba ca lépp ci liggéey bi ci sell ci set ki loolu lépp sagu Sénégal nañ ci bàyyi xel waaye gagné nañu ñu ngi ci pouvoir bi léegi dañuy nguuru ah dañuy nguuru d'ailleurs moo nguur boobu dégg naa président wax ko sànq Bassirou Diomaye Faye maa ngi koy ñaan bu mu génnatu ci làmmiñam maa ngi ko koy ñaan parce que nguur dafa am connotation négative mooy ñuy noos nañu bàyyi nguur tey wax réew mi comme jox nañ ñu réew mi maay njiitu réew mi maa ngi woo waa réew mi réew mi ngeen ñu dénk ñu ciy liggéey daañu fexe ba réew mi dox daa ñu fexe ba askanu réew mi nañuy bàyyi nguur nguur mi ngi jóge ci buur buur yi fi nekkoon démb dañ daan nguuru di buur di noos di loolu dafa loolu seen négatif nañ ko génn ci suñu vocabulaire tey wax réew réew mi dañ ñoo dénk doxalinu réew mi ñu war a doxal réew mi waaw moo olof yi am na ko mooy le pouvoir mooy le pouvoir le du nguur gis nga tubaab bi ñoom dañ koy ràññee le l'état le pouvoir xam nga le royaume waaw ñun nag dañoo jël temps yi nga xam ne suñu maam yi ñoo fi nekkoon yor ay nguur tubaab yi yoroon ay royaume nguur ga lañ jël mooy mooy le royaume mooy nguur mooy le royaume nguur boo koy tekki ci wolof ki tubaab mooy un royaume mooy nguur waaye pouvoir pouvoir pouvoir xam nga tubaab dafa wax dafa wax royaume ne pouvoir xam nga kon pouvoir ak royaume bokkul pouvoir ni ko tubaab tuddee mooy doole réew mi doole réew mi mooy pouvoir boo tekki tey ci wolof président président Bassirou Diomaye ak Ousmane bu ñuy wax nañ ñun ñi ñu dénk doole réew mi ñoo yor doole réew mi loolu mooy pouvoir ñoom pouvoir la ñu am